Euh, salaamaaleykum euh, cher internaute bu univers info TV ginnaaw bu ñu leen nuyoo jox leen seen wàccuwaay chaque jour plaisir lay nekk di ànd ak yéen tey nag euh, suñu doxantu tey dafa spécial ndax dañoo ñëw fii ci Médina fekk fi doomu Médina muy def lu ko neex ci plateau dama koy bàyyi mu daal di nuyoo ñu mën a xuus jëmale ci waxtaan bi ndax nekkatul ku ñuy présenté quand même. yee salaamaaleykum salaamaaleykum je m'appelle Mouhamadou Fall alias Jimmy Problème di nuyu mbokk internet di la nuyu ah. di la wax bienvenue à di la may ay waagwaan ay ninja ay ninja eh, tey nag eh, di mi ñu fas yéene waxtaane tolluwaayu dëkk bi tey nag ci tolluwaay bi dañ koy jiital li nga xam ne moo di choc bi fi amoon gis nañ bus bi nga xam ne moom la ñu taal eh, biñ ko taalee ba pare am nañ ci deux morts mais dañoo dem ba ci biir ay rumeur am ci que ni ki nga xam ne moo nekkoon chauffeur bi policier la ñii naan lu ñu créé la ñii naan ana ñi dee woon sax ak seen mbokk ndax kenn amul suivi ci loolu. waaw taxale noonu. parce que xam nga problème ñun Sénégal yi il faut ñu il faut ñu waxante dëgg quoi boo xoolee jamono yi passé euh, manifestation yi bare na dee yi tamit bare na tu vois nit ñi di dee comme ça yow chaque événement bu amee rek am ñu dee parce que ñoom il est temps ñu créer benn solution système politique bu bokkal ak maanaam système politique bi am nii ndax coow yëpp li ko waral mooy Macky Sall ak Sonko opposant yi ak ñi nekk xool pouvoir mais ni ngi di dee wala ni ngi xool duñu xalaat am na gis nga daam si événement yi ay sàcc am na si ay yàq ay agressé ay yoo xam sax bokk si donc ñuy ne noonu policier bi moo def lii man je ne sais pas du ma wax lu ma ñorul wala lu ma xamul quoi parce que dafa bari ay monteur yoo xam ne ñu ngi si internet bi lu leen neex danga koy dugal nit ñi dañuy jël image yoo xam sax xoolal nekkul sax ay bi Bissau wala ay Mali ñu jël ko di ko dugal ñu fii day xoolal Sénégal lii di jaxase nit ñi ah bi aussi bare na maanaam ci internet bi même même waa clan bi rek day xool benn boy bu ndaw taxaw téye micro di saaga ku ko neex di saagay sëriñ di saagay nii. am ni oto yi ñu si dee si accident yi choc yi ak problème yoo xam te ni dafa dese leer yenn Sénégalais yi waaw ñu ko jiite ñoom nan taxaw ñu leeral la nit ñi lii ak lii moo waral lii quoi waaw man dëgg naa nag ay ay version yu bare quoi waaw moo tax du ma sax bëgg di gaaw di wax si affaire yu mel noonu ko waaw mais am na ñoo xam ne ñoom bëgg na lu wax dara am ñu xool nu ñuy profité teg loo xam dañ c'est pas vrai wala nuy accuser koo xam dañuy ñoom ñoo ko tooñ di ko jaxasoo ak nit ñi mhm. maanaam système bu salte moo am Sénégal waaw fi am moom ñaaw na muy côté dee yi muy côté manifestation yi waa problème yu bëri yi Sénégal bi ñu xamoon instant nii Sénégal bi gën a bon na nu nekk nii wata Sénégalais bu vulgaire parce que bu réew wa sénégalais bu ñàkk teggin sénégalais bu xamadi jël internet bi daf ko benn boucler lu waaye neex wax lu waaye neex nga publier ndeyam sa yaay sa baay problème mu jàmm problème mu nit weerante denc benn image su nit mais suba nga bëgg ko chantage mu bañ nga ni xaaral ma chantage ko li ma weer ko ko amul si waa de sa bopp. est weerante boobu tey dañoo toll ci clan parce que neneen talent amatul mais plutôt clan. clan ñu waxante dëgg lépp ay clan la waa groupe ak la ñii ak ñii ñooy ànd ñee ak ñee ñooy ànd tu vois même clan même waaw même boo xoolee même star yi seen biir ñoom ñooy ànd artistes yi seen biir ñooy ànd tokkatu bon yi seen biir ñooy ànd góor jigéen yi seen biir ñooy ànd monde mi lépp xool ak waxi clan la yenn ibaadu yi ñooy ànd waa mais usbu ñooy ànd tu mais te clan bi gën a bon mooy te clan bi nu nekk nii ak clan business bi ak clan showbiz bi ak clan artistes yi ak clan star yi mhm. ñoom ñooy bëgg de seen apparement yi ñoom ñoo fay nekk seen biir lu leen neex ñoom na ñuy géem jigéen lu leen neex nañ koy def doomu jàmbur lu leen neex na ñuy def seen wekk nañ yor te gars yi kaañ nañu ko mhm. lépp dañ koy business yenn gel yi sax fu ñu am job sax ndesaan foo ñu jëm leen sàkkatoo wala ñu tëddale wala ñu def leen leneen mhm. moo am si système bi kon donc lépp ay camp wata camp boobu na xool pour nga bokk si groupe boobu noonu il faut mu am nu mu demee sa diggante ñoom ko eh, sinon yenn affaires yi yow doo si bokk maanaam bu ñu génn yenn aides yi wala yenn moyens yow di nga bokk si ñi gën a néewle quoi. Mm-hmm. kon daal fii Sénégal soo nekkee bañkat pour nga réussir day nekk day métti quoi waaw loolu moom day métti ko xam nga am yomb na quoi mm-hmm. mais mais mais nit bu amul coloré gëm naa ni yow yaag bàyyi may sax yéeneem quoi wala bàyyi may sax wala tàngal quoi maanaam nit ko xam ne amoo kóllëre amoo ngor yow doo yow doo yow daal jaam sax moo la tane maanaam waaw nit boo demee ne yow bu amatoo loolu amatoo ngor wax tey li gars yi def mën naa ko def ci télé yi dem taxaw di Samba Mbayaan ne comme sama yenn copain artiste ni ñu koy defee Samba Mbayaan taxaw ci télé yi dóor matt kom gars yi gars yi dañu lay may mënuñ ma taxaw génn benn affaire dama koy jaay mais saa am mu am ñu ma woo mayoo mënuñ wet ku mel ne Cheikh Ba daf may woo di ma may xaalis wet ku mel ne ko wet ministre de man daf may woo daf may may mënuñ wet El jour daf may woo daf may may mënuñ am na ñeneen ñoo xam ne dañ may woo dañ may dañ may may mënuñ mais nekkul damay dem si télé yi di Samba Mbayaan di rasaatu di tagg nit di duul nit tim nit ki nank yaay yenente beek yaay yàlla di ko duul ndax li mu la may ay yaaf mais gis na géwal yi yenn géwal yi yal na yàlla baal sax yenn gaay yenn gars yi sax léegi sax ñoo raw sax géwal yi ay temps bu ñuy wax wayaan sama benn loolu géwal la ko yàlla may quoi ñoom ñoo moom loolu quoi moo tax géwal boo laajee jox ko waa parce que yàlla moo leen may quoi mais léegi nit ñi sax ñoo raw géwal yi tey boo xoolee ci problème bi nga xam ne moo dal ci Sonko ndax jóge nañ ci Adji Sarr ak leneen leneen ci lan la mujjee ci affaire de téléphone vol téléphone moo ci am parce que image am la gendarme mu doon jël mu mu replier jël téléphone ba tey ji euh, jot na ci am li nga xam ni moo di dugg prison ba jot nañ ko transféré fi nga xam ne moo di Sibicou euh, Sébikotane. xam nga mandat de dépôt la gars yi wax la ko dóor parce que sénégalais dafay dafa yàkkamti quoi. Mm-hmm. yaa dana gaaw a atte loo xam ne ni jeexagul quoi problème mu Adji Sonko dafa yàgg quoi man man pas problème Adji Sarr Sonko sax mais euh, trois ans yëpp ñu ngi guerre quoi eh boo xoolee boobu léegi ay problème wart ñetti at si histoire ñetti at si problème Sonko ñetti at entre Sonko Macky Sall trois ans ay ñaata nit ñoo dee si diggante bi mais si biir wa trois ans yi ñaata nit nañ si gis ñu vulgaire lu leen neex wax si biir trois ans yi ñaata boy ñooy taxaw jàpp ay kilifa di leen saaga si biir trois ans yi ñaata problème yoo xam ne mu ngi ni weng si digg temps bi lu waaye neex wax lu waaye neex génn sa gémmiñ ku la neex nga teppil ku saaga yaay patriote ku saagawul doo dëjëw ndeyam ban njëriñ la am ñu nekk ñu kaaw ba rek ñun ñu ngi Sénégal ba lu mu fi taal rek suñu alal yàqu quoi waaw te problème yooyu ñun suñu kaw la jëm ne ñoom mënoon nañu lijjanti solution bi neneen nu bokk ak genre système yi ay kii da nga ko tooñ kee da nga ko tooñ politique ak kaso ñoom ñooy ànd amul politicien buy politique te doo xam kaso ñoom ak kaso ñooy ànd ñoom seen liggéey tant que jaaroo jeel duñ la valoriser da ngeen xooy xool politicien sax seen bopp ñoo ko baa ñuy kontaan ni ngi dem kaso mais ni ngi jot a dee ni ñu jot a dee maanaam ni si jot a ñàkk seen bakkan est-ce que seetlu ngeen ñu ngi jaxasal sax instant bi nit ñi ak sëriñ si léegi bàyyi nañu politique bi léegi ñu ngi jaxasee léegi ñu ngi bëgg a dugg si si gàmm yi ndax maa ngi dégg am ay gaaw naan ay gàmm bu jotee ku fi waxtu lii ay màggab jotee ko ñoom danoo ñëw fekk fi seen baay danoo ñëw fekk fi màggal seen baay ñëw fekk fi màggal seen baay baayam baay yu ndeyu baayam kooku ñëw fekk fi màggal fekk fi ay gàmmu ñu fekk fi sëriñ si fi nekk looy wax na nga ko xam fekkee da nga réew nag ba yor sa làmmiñ yaakaar yow lii yow lii mooy sa ndam réewaande boobu noonu danga kay yóbbu sa papa ak sa yaay ndax da ngay dee te da ngay puub doomu aadama dong nga doo tuunu ndeyam nit kase nga simple nit dong léegi lu waay neex wax wala dañu yaakaar dëkk bi ay nit ay ñëw rek gérer dëkk bi quoi wala dañu yaakaar dëkk bi amul yoon quoi wala dëkk bi amul état wala amul justice quoi ñoom la doon foog parce que internet bi moo leen nax quoi dañu xool ku yor portable am yor xoolal connexion am lu ko neex wax quoi. Sonko mandat dépôt lañ ko dóor ñu ngi xaar mandat depo mooy dénkaane ñu xool dossier bi na ay demee ay affaire téléphone lañ ko di nag ay affaire lee lañ ko di ñoom ñoo géem loolu man li ma si xam lay wax li ma si xamul li ma xamul sama yoon nekku si. mais en tant que nga xam expérience boobu tey ji est-ce que li liñ koy defal ni nekk na lu rëy tuuma bu rëy parce que tamit nit ki moom moom image am waru nañ ko jël mu daal di jëlaat li nga xam ne moo di image am ko mais kantaa rek yow ñu wane bon ñu wane ñu wane benn image man gis naa image boo xam ne moom Sonko moo si nekk ak waa ji wa téléphone bi buñ kenn nangu mu naan ko sa supérieur moo la yónni xam nga euh, voilà pour man ah Sonko wërte kilifa la boo xam te ni am na yoo xam sax man yenn détails yoo xam sax man waru si dugg am na yenn détails yoo xam ne sax Sonko da si warul dugg loolu laa gëm quoi moom en tant que nit en tant que bëgg nekk leneen loolu ko bëgg nekk président am na yenn détails yoo xam ne moom waru si dugg si àdduna quoi eh, ay affaire yu ñàkk fa ay téléphone mais xoolal ñu ngi nit ay téléphone ay viol la nekkee ah ay problème tam mbay ñaa la xaw ma ay problème mu kii boo jógee si lii dal si lee xam nga jaru ko ko ndax chaque fois rek su action amee problème am yàq bi bare nit ñi dee ñu dëkk bi lii moo koy changé li changé wul dëkk di guerre reyante changé wul dëkk et puis ñun toppandoonu benn dëkk ñun ñun amul dëkk bu ñuy toppandoo Afrique toppandoonu benn dëkk waaw ku yaakaar da ngay toppandoo dëkk da ngay dem dëkk woowu nga gém ko wa te nekkul ne te nekkul yow nekk si dëkk bi dëkkoo ndey si dëkk bi ngay wax si dëkk bi yoo xam ne yow yamal sa yow amoo kër dand sax yoroo ko da ngay ñoo xam ne tey nekkuñu Sénégal du ay sénégalais ñu ngi jàpp sénégalais di wax lu leen neex waa mais à travers l' internet jàpp suñu kilifa yi di wax lu leen neex jàpp suñu njiit yi di wax di wax jàpp ko politiciens yi jàpp ñeneen ak ñeneen jàpp ko président lu leen neex génn seen gémmiñ te dëkkuñu fi du ay sénégalais. Hmm? mais loolu loolu mooy yewlu sa bopp fii wala Sénégal lu faay def day jeex dëmm dëmmal gi ñuy def fii wak tërërëbeeg taal fii wak boyal fëleeg rey kii loolu lépp day jeex dañuy xëy suba ñëpp di tekk dem joob yi parce que nit ñi dañu sonn da ngay gis benn maire boo xam ne gerte caaf lay jaay ak dànqal si dem nga ñëw fekk taabalam nga taal ndeyam loolu mooy Sénégal fekk magasin jàmbur nga ubbi ko daaj ko wa fekk waa kuy jaay téléphone xoolal nga ñëw ni ko da nga jox da may jox ba mujj gi sax yenn magasin da nga ñëw ñu graissé un million deux million xoolal nga dem Sonko ñoo ngi lay créé ñoom ñoo yàq dëru Sonko mais Sonko kilifa la te responsable te nit la mais ñoom ñoo yàq dëram quoi ñoom ñoo ko yàqal. mais gars dañuy wax ni que la fait que Macky Sall demul li nga xam ne moo di troisième mandat moom dafa dañuy falal naan du ma du ma dem waaye moom du bokk. non yooyu amul sens quoi moom ba mu taxee moom moom kañ la libéré Sénégal yi. loolu dama ko dafa libéré Sénégal ba dafa taxaw dafa am tuuma mu man du ma bokk troisième mandat jeex na quoi leen lu faay wax rek yow la quoi mhm. moom mooy njiit mooy président mais ñoom ñoom xool faloogu nu doon fexe falu mhm. bu ñu faloon nag ñu ngi leen di suivre ñu xool nu ñuy liggéey mhm. mais pour kii mooy njiit bi tant que 2024 jotul waaw bu ko neexee nag moom mu xool ni kii mooy candidat am ñoom tamit noonu liggéeyal seen bopp quoi ay dafa bëgg xajam nag politique ndax ñoom mënu fi nekk di def lu leen neex tamit di jàq dari nit ñi di jaxase nit ñi ñi xeex suba ngoon ay gën leen ngeen taal ay gën leen ngeen taal kër waa kër mais est ce que ça ay dem leen ngeen taal fii dem leen ngeen yàq fële mais ba kañ. Mm-hmm. est ce que tamit nekkul amul liggéey wala soit euh, condition de vie métti na moo tax pour ñu yëkkati leen day yomb. gars yi ñoo leen gën a sonn foofu booy. Mm-hmm. fi ñëpp a sonn booy. Mm-hmm. a sonn ba fii as xool góor ngeen kese ñooy noos ñoom ñiy joxe seen taadi ñoom ñu leen fay ñoom doomi xaraam yooyu ñoom ñooy noos ñoom ñooy am mu ne ak féeg yi wala yenn xool trafiquant yi mais ñun lu ñu am rek dañ ko fayatin te dañu doylu si lu ñu am ko temps bi fépp la taree li tax booy di jaar si gaal yi mais ñuy xool si biir gàll lay commencé dangay ngay si benn gàll ak yow ñi la wër ñëpp am ay moyens am teraanga mais du kenn ku ñuy dimbali nu jox ay caga moo leen gën a war baat baataga si concert jàmbur yi seen portable yi rek seen benn kóol rek boo ko jaay yow mën nga si dagg bi dem liggéey mais du nga ko def da ngay bàyyi ngay kërti kërti nga da ngay fippu yow da ngay màgg si kër gi yow yow doo mënal sa yaay dara da ngay judd sax fekk fi bor ñu la sa yaay da amee na gotti wala sa ba amee na kii bor waa mais nga màgg nar a fay bor bi wala nga ah màgg bëgg a yóbbu sa yaay màkk waa mais màgg war a tekki war am soxna war a am nii ak nii mu nekk euh, lu doy waar euh, waaye tamit instant bi fi réew mi toll bëri na tax na bëri ay candidature maanaam ku mu neex day posé ba ci euh, candidature ki nga xam ne moo di Mame Goor Diazaka lan la ci dimi moom Baye Fall Yaay Fall maanaam Baye moom bu mu yëpp quoi waaw wax dëgg yàlla Mame Goor Diazaka Cheikh dama yaakaar ni moom du xalaat quoi wax yàlla quoi te maa ngi jégalu mais pour ay prés pour yi yow nga nekk ko nii non maam Ngor da ngay def xam nga ni que booy booy kii da ngay de da ngay da ngay euh, man yàlla su ma koy ñaan dama koy ñaan loo xam ne ni dina am ndax yàlla dafa ni dafa wax lu leer sax dafa ni sax waan saako waa mi ud'uunii astajib lakum mais ñaan leen moom may leen mais da koy ñaan lu mu mën nekk ak lu mu mën a maye ay présent non du question dara mais maam Ngor maam Ngor maam Ngor ba ñaar ñi maam Ngor euh, ak bu neex bi ko théâtre kat bi la Ahmed Cissé wala. non non maître moom. maître El nee na day posé candidat bu ñu ko joxee réew mi ku mu jàpp tëj nga tëj mu tëj nga rey mu rey moom pour om ay comédie ñooy fal président quoi yow maam Ngor moom xool fii la dem élection kii bi passé nii xool référendum bi xaw ma mais ay six personnes ñoo génn foofu ci buntu këram wax boo ñettee da ngeen campagne da ngeen waa caravane non moom non moom xool moom su bëggoon waa Tëngéej ma ñàkk soma day moom du def lii quoi. waaw su moom su bëggoon waa Tëngéej moom du def lii quoi moom daal na jàppale Macky Sall na yem si li mu yem quoi mais pour ay poser candidat pour nekk man damay poser ndey sax xolal candidat boobu man. waaw léegi ki xam ne moo di 10 000 problème candidature yow tey boo doon changé ci Sénégal lan ngay changé ak ban stratégie ngay indi di 000 problème candidature. non li may changé moom loolu man foo ma falu ko loolu foo ma falu pour wax ko quoi. Hmm. mais xam naa ne réew mi dina am jàmm daanu lekk daanu naan te am jàmm. Hmm. daanu baalante ak quoi. Hmm. di nga gis xool di nga présent boo xam ne day fréquenté nit ñi nii pourquoi mënuñu wàcc seen bopp ñoom ñu wàcc si mbedd mi ñu teel a seen bopp nit ñi ba tey Macky Sall mu ngi ñu tey wa tey bu demoon élection ne mu dem taxaw ne la échange yoo bu ko neexee Macky Sall te bu ko neexee xool wata Franck Mermoz bu ko neexee xool Franck parce que libéré na Sénégalais yi nee du bokkati du bokkati troisième kii bi mais kon libéré na gars yi ñettee bu waxoon tey day bokk nit ñi dana amaat beneen rànkañ ak beneen problème bu ñu indiwaat mu gën a am sécurité mais léegi dafa am liberté fu ko neex Macky Sall mën na foo ko la fanaan mais est-ce que nekkul nit ku ne mën na am initiative defar ndax boo xoolee ki nga xam ne moo di Bijou bu 2STV boole na tey ji benn <coughs> initiative maanaam concours togg boo xam ne tey ji jubóole na Mame Ndiaye Savon ay moment vulgaire maanaam boole waat na diggante yu bëree bari bari ba instant bi sax ñu ngi demalante dikkalante waaw Bijou Ngoné moom du question dara maa ngi koy nuyu quoi jàmbaar la wax dëgg yàlla quoi jàmbaar la jàmbaar la du dara man xam naa ko depuis Sen TV yi waaw mais li ma mën wax si moom daal mooy jàmbaar la liggéeykat la bi su ngoonee day def ay émission di boole ay nit quoi ñuy ak ñuy gagné bi su ngoonee dinaa la benn affaire waaw moom li muy def tey moom li muy def li muy def xool bu ko journaliste su bëree xool doon def fii ma ñàkk su ma ndey ma sama carte ñu bëri am na nañu xaaj léegi waaw man xoolal man émission bi rek laa dem fii Sénégal ba mu daj émission bo émission bi suñu gone rek laa toog émission bi suñu gone encaissé fa un million et quelque benn deux heures de temps bii suñu gone kese ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen moom dafa am stratégie moom mooy créer li ñuy wax la confrontation temps yi dégg naa ko moom moom ak problème ak ak Abou Thiobolo mu mel ne Abou Thiobolo dafa am lu mu ko logaloon wala dafa am lu mu ko lu mu ko jàppaloon quoi bii suñu gone da nga koy danga nga koy nangul da nga koy nangul euh, weta concertam concertam mooy confortation te confortation nag bàyyi képp kuy niral sax war nga xam lu mu tekki moom concerté boobu lay tekk di ko dund moo tax du ñàkk xeex man invité na ma te mu ne maa daal renaissance waaw mais ay mbër ñoo roon garde maag beneen gaañ ay ponkal ñoom parce que dafa naroon xeex mais après émission bi jeex ñu nekkaat suñu biir waxtaan naat mm-hmm. game la mm-hmm. dañuy faral di dégg tout le temps ci dimi problème maanaam li nga xam ne moo di euh, góor jigéen aussi daf ko metti ba saay bi wax tout le temps rek dafa leen di sànni ay xeer. non parce que xam nga góor jigéen yi réew nañu réew boo ni te góor jigéen yi dafa bari façon yaa ngi gis ñu fës ay yeneen góor jigéen yu fës am na ñeneen ñoo gën a nekk puissant ak góor jigéen dafa am euh, am góor jigéen am kanaara am tunk mm-hmm. waaw danoo bari façon quoi mm-hmm. waaw mais góor jigéen moom man mun naa daa ko lépp si àdduna sëf góor jigéen. yàlla na si yàlla musal quoi parce que lu lu bon ak noonu quoi lu bon lu salté lu garaaw ñoom boo leen jegee sax am na nañu benn odeur boo xam ne même bu doon parfum sax parfum bu jar un million sax am nañu benn odeur boo xam ne maanaam odeur benn mixage boo xam ne nii entre dafa mel ne nga jël góor ak jigéen nga nga bëtti leen quoi dafa mel ne wala nga jël jël géej gi exemple ah. la. <laughs> non waa comme nu ma mënoo sax waa comme nga jël géej ak yéet voilà géej ak yéet boo ko bëtee a nëbal ko yow xeet boobu noonu la góor jigéen mel ba pare baaxul si dëkk waaw yàlla suy wàccee martaba ak balan rek en général te góor jigéen ñi moo tax waaw muy def lu naan xool nadribuhaa linnaasi la'allahum yatafakkaruun dinaa bëgg ñu ba fexe dama fàtte. mu nga dund jigéen tey bu nawetee ba yenn ba yenn góor ñi sax. a gën a saf yenn gel yi da nga naan déedéet quoi am na góor ñoo xam ne xool comme ay jigéen màcc ay tuñ xonqal nooy nooylu yéen mais yow lu gel bi war a def yow yow ba yow yow bàyyi fa yàlla bàyyi nga koy def. garaaw na de ah <laughs> yëfu jigéen di xonqal ay tuñ ak xoos ah di màcc ay tuñ di non tamit góor nga war a nekk góor dangay ay góor ñoo xam sax léegi ay diw saa mille la ni diw ay saabu yu cinquante mille jigéen moo war a kiling góor nga doon góor yàlla quoi. Mm-hmm. nekk quoi tamit ah. tey tamit tamit ñu gisaat ci li nga xam ne mooy prisonniers yi nee nañ ah, def grève de yàgg na sax moom yàgg na gars yi du def loolu quoi. waaw Koutal ñoo njëkk grève quoi wax naa ko fi quoi. Mm-hmm. waxta benn jëla bu nekk ko bu nekk bu nekk bu nekk bu nekk la Kaolack quoi. Mm-hmm. ñoo njëkk def lu ñuy wax grève de la faim parce que lekk yi baaxul. jéeli bokk ñu nekk si ñu nekk si jéeli bokk ñoo njëkk def ko la grève de la faim. loolu xool prisonnier la parce que nekkin baaxul. ba pare dund bi dafa cher loolu jëlmaan ni di ñaxtu ñëpp grève de la faim man waxoon naa ko fi waxaat ko fi nanu dimbali ñu nekk si côté yi te yàlla moo tax quoi mais politique fii nag seen problème yëpp lii la ko ñoom seen intérêt rek maay falu ni nay demee yow loo xam te ni 2024 ñun 300 ba léegi ñu ngi xeex 300 ñetti at benn solution mu lu dul ñu ngi di dee rek accident yi di gën a bare nanu xalaat wax si loolu quoi mais tamit euh, li nga xam ne moo di prisonniers yi c'est très rare ñuy am ku leen di waxal parce que grève bi tey boo ko déggee ci yow bala nga koo déggaat li nga koy dégg bariwul te loolu dafa metti ah ñu ngi koy ñaxtu de ñu ngi koy kaas naa ñu siy kaas tamit quoi xëy na gars yi lu leen neex na ni valoriser wala lu leen neex na ni jàll la ko waaw tu vois oui. tey jii euh, ki nga xam ne moo di 10 000 def na jeer tey ba doon ñu retracer fee yi ak yi fa nekk pour gars yi tamit. ñenn ci jeunes ñu mën ci bàyyi xel ba yu bari dinañ ko wàññi. waa jël dina fa yóbbu xool façon bu nekk quoi. waaw boo xoolee xoolee manifestation yi passé rek ñu nekk si jël bi noonu la bare mhm. ñu yóbbu bare na parce que tamit jeunesse bi ñoo dem ba xam ne ba ñenn ngi dañ leen di nax quoi mhm. di loo xam ne amul tey bu amee problème ñu bàyyi say problème nanu moytu loolu quoi sàkk nu yóbbu leen ñii ñu jàppaleen gen bon yóbbu leen ñii ñu màndeen yóbbu leen ñii leneen ñii xeex ñii ñu xool benn policier policier bi jëpp leen nu yóbbu leen ñii scooter dëkk bi daal nit ñi ñuy baree ndax ku si nekk ni ngay liggéeyantee mënuñ quoi ku si nekk sa business ba nga nekk quoi ku si nekk ak la ngay def ndax ku si nekk xaalis jaral na la lu nekk wata kaso moom xool façon bu nekk ma nga fa wat toñ wata tooñkat yaa ngi fa wata defkat yaa ngi foofu wata ñu nu tooñ ñoo foofu ñu nu tooñ ñu ngi fa waaw jéel mi ngi noonu man jaar naa fa jaaraat fa lii maa tooñ lii waaw tooñ mais des fois tamit nga dund peine boo xam ne dañ laa tooñ tamit c'est dur danañ dañuy faral ni sax loolu boo ko defee soo génnee doo am espoir sa vie wala toi banditisme si yow lay gën a bare ndax da ngay découragé quand même xam nga banditisme boobu sax moo amul njëriñ quoi man ma ko man gaw ma banditisme man loolu laa gëmul sama àdduna du ma tapé nag du ma ragale mais dama gëmul affaire yooyu noonu gëw ma ko parce que amul njëriñ li ngay ñoddi di ko ngand ngandaloo yàlla xam na ne ba sa sa kanam te deewu kañe sax moo lay tane ndax seul travail paye yàlla moo ko safa loolu liggéey lan lay fay loolu liggéey rek lan lay fay la moo tax ñu fal Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nekk laa xooli xaalis ndax jukkum rafet nit ñi nanu bàyyi seen xel yi amuñ njëriñ ndax ki ngay rey wala ki ngay jëm wala ki ngay def lu metti daan la ko def de wala ñu def ko sa papa mbaa sa yaay mbaa ñu def ko sa mag pourtant li ngay kaas noonu muy affaire de góor jigéen nee nañ la génne non parce que mënoo jël ay nit pakate leen si ay nit mënoo jël ay cent personnes deux cent personnes nga pakate leen ñuy collé xam nga du ñëppay du ñëppay yem quoi du ñëppay mën a muñ yéen ñëppay nekk góor yàlla quoi dina am ñoo xam dina am virus wu tëdd doomu jàmbur quoi dina am ay góor ñoo xam ne da leen xool sax yow sax nga am envie sax tëdd leen ndax ñoom ñoo góor jigéen quoi yow non day am quoi si yenn góor ñu quoi da gis yenn góor ñi sax day am quoi moo tax góor jigéen bu wette kaso la njëkk génne ñu gars baa bàyyi si loolu quoi. est-ce que euh, mës na mës na assister benn benn boo xam ne noonu la demee biir sànni wala mu gis ko nii. non gis naa benn boo xam ne moom wax dëgg yàlla te góor la quoi. Mhm. mais euh, weta kanaara la quoi. tu vois nan ngay tuddee kanaara. waaw kanaara mooy góor gi joxe boppam quoi. parce que am na góor ñoo xam da leen tëddee am na ñii di tëddee ñii. góor jigéen dafa bari ay façon yoo xam ne ni ñoom dañ koy dund quoi eh, yàlla na si yàlla mu wala mu jullit quoi mhm. en tout cas lu bon la quoi mhm. tey ban message ngay wax jeunes yi ci tolluwaayu réew mi politique beeg yooyu en tant que porte de voix parce que gars yi tamit jox la la nopp ne ñëpp ay sénégalais mhm. su ma neexoon enquête comme gars yi nii wala mu fës wane sa mbokk fii nii man amu fu ma man amu fu may choisir waaw man amoo ku may choix waaw man lu may choix la amul amul lu may lu may décider quoi man je suis là avec le peuple quoi man ñoom lu ñu décider man amul ku may décider man yàlla def na amul fu may amul lu may décider quoi mais nit bu ñu nee lii la man lii la loolu laay def quoi te tey yi may conseil jeunesse bi mooy ñu bàyyi suñu xel ñoo xam ne politique na ko seqal quoi politicien nañ ko seqal quoi waaw li fi jot a nag bari na si ay ñaaw teef wax bu ñaaw dépassé ay kilifa lu ne ñu def quoi rewande bi am ci temps bi nii nii ku taxaw téye micro di daggal di ma bul maskawu bul maskawu wane sa kanam fekkee góor nga dëgg la quoi wane sa bopp Baye Fall yaa ngi suuxlu keneen ñu jàpp keneen jaarale ka yow no wane sa bopp man sa ma demee ba taxaw naan Macky Sall temps à temps damay damay wane sama bopp yaa xam suba nga fobeere wala nga bañ a fobeere bul maskawu bul sàkkatu wane sa bopp fekkee dëgg la Baye Fall yi ñuy def nii amul njëriñ quoi amul sens quoi waaw parce que ñu lu ne ñu ngi koy lu wax quoi mais ana sa xarit Dof Ndeye temps yi dañ ko gëj a gis ci ci ci réseau waaw xam naa mu ngi fii mu si jàmm mu si jàmm mu temps moom wute gën doon déggante. Mhm. Euh, xam naa dafa voyagé a si ay affaire am. Mhm. waaw xam nekkul diggante bi yéen ñaar dafa rataxatul ba tax na déggante bi neexatul. noo jàmm rek ñu ngi déggante téléphone. Mhm. mais mu ngi si boppam quoi mu ngi si géemam quoi. <laughs> yaa ngi sa géem. <laughs> donc merci beaucoup ah 10 000 kontaan nañ bu baax ñun waa univers info euh, li nga xam ne moom la la dalal fii euh, particulièrement waxtaan nañ ci li nga xam ne mooy tolluwaayu réew bi waaye sans plus tarder li nga xam ne mooy choc yeeg comportement yi nga xam ne moom la jeunes yi war a am moom 10 000 daan na ci clair bu baax a baax dama lay bàyyi rek nga def sa mot de la fin ñu daal tëj. waaw di bëggee rek di bëggee Sénégal di wax rek ñun yàggul quoi waaw maa ngi dégg nag ay ay cent ay cent et quelques ku nekk naan mooy candidat. yéen xam ngeen bu baax a baax a baax a baax a baax a baax dëkk bi ñiy jiitu ñi di jiitu ba ku mu neex na nga posé sa candidat maam Ngor ngir yàlla nga téye sa carte boobu quoi nga dem jàppale sa président nga kuul nekk sa bopp jamono ñëw ko oui météo El Hadj nekkal nit voilà. 10 000 moom si euh, kan la si population bi laa bokk man nit ñi rek. est-ce que toog ko toogoo Sonko mu sell mi. non allahu yàlla ma xam en tout ci population bi. yaa parce que man amul lu may desitu quoi. Mhm. waaw ñoom bu ne nee rek man ma ñoo tànn quoi ma ñoo xeex comme ñoom ko voilà waaw euh, donc merci beaucoup. Oui. Euh, ci biir Univers Info TV comme ni may waxee saa su ne dawal gaaw nga abonné ci page bi partagé ko bu ko defee information bi di ñëw à ah, temps donc d'ici la portez-vous très bien merci.